Cérébraux International. Cérébraux International.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 kon euh, déposé woon nañ ko pour ñu annuler boobule radiation wante amagu ci tontu ñëw nañ itam ci Yewwi ak Wallu ñi ne daal fi mu nekk ni wan nañu ginnaaw li nga xam ne moom mooy élection au conseil de collectivités territoriales de sax nee nañ it conseil constitutionnel euh, décision yi nga xam ne kon moom la euh, nar a jël duñu ca ànd ñëwaat nañ itam ci li nga xam ne moom mooy euh, mbirum euh, kooku nga xam ne kon euh, muy kooku ñu ne dafa am feebaru xel te ñu faatoon ko fële ca Pikine ñu ne nag ñi njort ne ñoo def li mel teg nañ leen loxo. le soleil yéenekaay dafa ñëw nag ci mbirum kër yi nga xam ne day faral di màbb. loolu nag euh, fan yi ñu gis ne bëri na lool ba sax ay nit yoo xam ne sax dañ ci ñàkk seen bakkan ñu def ca nag ab taxaw seetlu wante itam ñëwaat nañ ci euh, Saourou Sène gannaaw bi nga xamee ne kon euh, fi mu nekk nii jóge na ci boppu syndicat bii di SAEMS dikkaat na nag ci liggéey ba mu fa def ba mu fa néeweek léegi ñëwaat itam ci benn projet boo xam ne pour protéger bari balbari bari ñu ne nag lu toll ci dix hectares ci ay garab dinañ ko jëmbat le quotidien yéenekaay dafa xëy fësal ci xëtam bu njëkk au conseil des collectivités territoriales ak 4 septembre bi nga xam ne kon ci lañ war a amal wat ba ñu ne nag euh, waa yeewi euh, ak euh, wàllu ak gëm sa bopp nee nañ duñ ca bokk war nañ ko ginnaaw te sax dañuy sàkku ñu supprimer au conseil des collectivités territoriales ñu ne nag Benno ak naataange askan wi ñoom dinañu bokk ci yooyu le élection ñëwaat nañ itam ci mbirum hôpital euh, Aristide euh, Dantec euh, ak fi mu nekk nii daal jafe-jafe ya nga xam ne ñay personnel médical ba ak ña fay fajoo di patient ya ñu ngi koy am gannaaw bi nga xam ne kon dañ koy toxal Walf Quotidien ñëw itam ci li élection bu Haut Conseil de collectivités territoriales muy membre ya ñu ne nag opposition bi daal boycotté nañ ko kon duñ ca bokk wante itam ñëwaat nañ ci Pierre Goudiaby Atepa miñ ne fi mu nekk nii kon mu nga fële ca Tchad dem na fa ngir préparer terrain bi njiitu réew mi Sall mi nga xam ne kon dafa war a amal ab visite. sud sud quotidien ñoom nag dañoo ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy euh, élection présidentielle yi nga xam ne kon war nañ ko amal ci mois de février bu deux mille vingt quatre ñu ne nag loolu ndax du am njeexital euh, ci lii di euh, assemblée quatorzième législature bu assemblée nationale bi wante itam ñëwaat nañ ci coupir électricité yi nga xam ne dañ koy faral di nemmeeku fan yi ci ndakaaru ak jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi koy jural ñii di borom kër yi. l'observateur l'Obs ñoom nag dañoo ñëw ci ab taxaw seetlu boo xam ne dañ koo def ab jàngat ci jigéen yi nga xam ne euh, dañuy tas nekkatuñ ci buumu sëy ak daal euh, yenn saa yi sax euh, day am ay gisin wala ay waxin yu yu ñaaw yoo xam ne kon dañ koy teg ci seeni der wante itam ñëwaat nañ ci mbirum aviation civile ak Air Sénégal ak euh, lu ñeel euh, benn ci ñaari aw yooyu a trois cent trente néew ñu ne nag ay mbirum problème mu kayit yu ca manqué ba tax ñu transféré ko euh, Airbus dañuy dem ci la populaire ñoom nag dañoo fasal seen xët wu njëkk li nga xam ne moom mooy coupe du monde ba ñu ne nag date d'ouverture ba reporté nañ ko te Sénégal Pays-Bas sax dootuñu football li nga xam ne moom mooy match ouverture bi ña koy football kon mooy Qatar. ak Équateur te le 20 novembre lay doon ñu ñëwaat itam ci Macky Sall miñ ne fi mu nekk nii mu ngi laaj ñu amal programme bu bees ñeel xeex bi ñuy xeex li nga xam ne moom mooy mbënd mi te loolu mu ngi koy sàkku balaa décembre deux bés bi le jour dañoo ñëw ci Pape Diop euh, mi nga xam ne nak ñu ne euh, démb kii di sëriñ mun Mountakha Mbacké recevoir na ko ñoom bés bi nag ñu njortu sax ne Pape Diop boo mayewul njiitu réew mi Macky Sall moom lay euh, fekki euh, maanaam euh, coalition benn Bokk Yaakaar ngir ñu am majorité ñëwaat nañ itam ci li nga xam ne moom mooy personnel ak patient yu hôpital Aristide Le Dantec ak jafe-jafe yi nga xam ne tambali nañ ko dund gannaaw bi nga xam ne kon hôpital ba dañ ko war a àndal lii di direct news nag ñoom dañoo xëy fësal Mankeur Ndiaye mi fi nekkoon ministre des affaires étrangères bu Macky Sall moom nag nee nañ fi nekk nii boo mayul dina euh, fekk ñi nga xam ne ñoom ñooy opposition ba wante itam ñëwaat nañ ci moom nag euh, jamono ji nga xam ne ñu ngi laam-laamee ndax dina dem fekk Benno Bokk Yaakaar am déet ñu ne ba bésub tey bii nag ci la war a addu ci boobule mbir L'As Quotidien dañoo ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy coronavirus ñu ne nag virus bu bees bu Covid 19 feeñaat na fële ca. wala boog ñu ne euh, gannaaw coronavirus am na ab virus bu bees boo xam ne euh, feeñ na kon fële ca Chine wante itam ñëwaat nañ ci mbirum euh, alim alimentation maanaam augmentation pour Sénégal gën a yokk li nga xam ne kon moom lay amal ci wàllum mbéy li ñuy dundee ñu ne nag BAD lebal nañu lu toll ci quatre-vingts milliards de francs CFA. réew mi quotidien dañoo ñëw ci Yewwi Askan Wi euh, ñu ne daal ñoom dañoo suul nañ li nga xam ne moom mooy au conseil des collectivités euh, territoriales gannaaw daal bi ñu gisee ne amul njëriñ ñuy sàkku sax ne euh, boobule institution dañ ko war a dakkal bu mu amati stade yéen kaay nag dañoo ñëw ci suñu gaynde gi di Bamba Dieng ak fële ca Marseille ñu ne nag nekkam foofu la ca club boobu fi mu nekk nii boo mooy dina gën a am ay jafe-jafe gannaaw bi nga xamee ne sax kii di Alexis Sanchez ñoo na foofu foofule ca club ba wante itam ñëwaat nañ ci Real Madrid bi nga xam ne démb gagné na lii di super coupe bi mu dooree Francfort 2-0 loolu sax day nekk cinquième titre am sunu làmb nag dañoo ñëw ci Abdou Gueye mi directeur technique bu fas moom nag nee na fi mu nekk nii li mu gis mooy Gris Bordeaux ber li nga xam ne moom mooy écrit boppam wante itam ñëwaat nañ ci Tapha bi nga xam ne gannaaw ñaari weer yu mu def fële ca bitim réew dellusiwaat na ñu ne fi mu nekk nii nag taxaw na temm ngir jaamaarloo ki nga xam ne moom mooy Lac 2 ak Ama Balde Libération dañoo ñëw ci ab mbir moo xam ne ñu ne mu nga xew ca France ñeel suñu benn naataango ñu ne moom nag dafa faat ki nga xam ne moom mooy ka mu nekkaloon di di wuyoo ci turu Clotilde te sax ka ko ca dimbale moom mooy euh, ab xelelu jigéen. Euh, ñëw nañ nag bu baax ci mbir moomu wante itam ñëwaat nañ ci li nga xam ne moom mooy euh, élection yu membre au conseil des collectivités territoriales ak Yewwi Wallu ak Gëm sa bopp ñoom boycotté nañ ko kon duñ ca bokk. tribune yéenekaay dafa ñëw ci ñaari institution yi di haut conseil des collectivités territoriales ak conseil économique environnemental social ñu jàpp ne nag euh, ay institution yoo xam ne nag amul njëriñ te sax li ñuy yóbbu ci alal dafa bëri lool ba ba ñu yaakaar ne ñoom dañ koo war a kon dakkal ñëwaat nañ itam ci euh, président bu conseil constitutionnel di Pape Mamour Sakho fi mu nekk nii nag nee nañ moom mandaam jeex na gannaaw bi nga xamee ne sax ñu ngi xaarandi résultat définitif yu élection l'info yéen kaay li lim fësal ci xëtam bu njëkk euh, moom mooy euh, Yewwi ak Wallu ba léegi ñu ne nag euh, taal nañ lii di conseil constitutionnel maanaam won nañ ko ginnaaw te sax dañuy sàkku ñu dakkal leen maanaam dootuñu amati wante ñu waat nañ ci njiitu réew Macky Sall ak daal taxaw bi nga xam ne gouvernement bi moom lay am ci mbirum mbënd yi muy réclamer nag ñu amal beneen programme boo xam ne day xeex lii di mbënd te sax nee na loolu balaa décembre deux mille vingt-deux kon nañu ko amal le témoin yéen kaay ñoom nag dañoo ñëw ñu ne ci ñaari décision yoo xam ne ñu ne dañoo jàpp ne décision yu politique la yu yeewi askan wi yu yeewi ak wàllu jël mu ne maanaam ignoré lii di conseil constitutionnel bi maanaam conseil constitutionnel bi daal lu mu wax ñoom seen yoon nekku ca wante it boycotté élection yu haut conseil des collectivités territoriales yi ñëwaat nañ itam ci lii di quatorzième législature yi muy assemblée nationale bu yees bi ak daal la nga xam ne eh, moom moo leen di xaar liggéey yi nga xam ne kon ñii di député yi war nañ ko eh, amal dañ koy jeexale ak lii di yéenekaay bii di enquête ñoom nag dañoo ñëw ci recomposition politique maanaam langu politique gi ni mu war a doxee gannaaw bi nga xam ne élection législative yi jàll la ñu ne nag eh, kii di Abdoulaye wadd ak euh, doomam Karim Wade maanaam ñaari Wade yi dinañ ca am euh, taxawaay bu am solo gannaaw bi nga xamee ne nag euh, coalition Wallu Sénégal am na lu toll ci 24 députés ci lii di élection yi ñu génn wante itam sax am nañ 470 000 ci ay voix te it am na ñetti bërëb yoo xam ne ba léegi seen doole. ñu ngi ko fay am loolu la ñu indi loon tey bésub tey bii ci seen revue des yi di leen jaajëfal ci seen teewlu di leen jox di daje rek ëllëg ak beneen jàngat ci li gën a fës ci xëtu yéenekaay yi. Sénéinfo International. Sénéinfo International. abonné YouTube yi ngir saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci